<laughs> dama fee def vidéo wuyoo sant jëkkër sant boroom kër ay ay jeg di ndaw di ma woo ne ma tata dañoo am kersa boobu pour lan sa boobu waaye gis nga loolu lépp danga koy tàmmee sa kër yaay rek xale bu jigéen boo ko yaree ci kër nii wuyoo sant papaam sant papaam lay wuyoo ba génn kër gi bis mu sëyee pour mu wuyoo sant borom këram da koy yomb da koy yomb waaye ah ak naam bu ko tàmmee kër yaay moom rek lay yóbbu ci kër borom këram te boo ko bëggee wuyuloo day diis mënu ko waaye day giifal góor man pour man Mbodia jeeg mënta jonge te du wuyoo sant boroom borom këram day giifal góor aka nga meroog tey moom mu toog nee nga toog ne ñu woo la Mbodia Mbaye nga ne sii sa ngaari njar meew day neex ci xolam bu la ko waxee bu la ko waxul yépp day neex ci xolam te nag góor gu sañoon tamit boo takkee soxna ci ñu bari boog war nañoo mën a wuyoo seen sant borom kër lan moo tax doo ngi ko mat ngeen koy rëy te gis boo rëyee sag jonge des na munoo jonge boo rëyee moom munoo jonge te boo rëyee munoo wuyoo sant borom kër ngeen ba seen borom kër yi ngeen di sàllaw di jaar ci dëgg bi mu tudd moodu ngeen di ko moodu mu tudd mu tudd moor ngeen di ko moor déedéet ana ku baax alaaji rafet ko neex yaayam àjjana sang bi nijaay ñun suñuy yaay dañ daan woowee su dañ daan woowee suñuy pàpp nijaay ba ñu defee ne sunuy pàpp nijaay la ci ñoom te wallaay azim ak allaaji alaaji sax day gàtt nga ku baax waaye bee man bee man moom moom man bee bee laa mënta si porte ndax bee moom kenn du ko woowee kilifa gu ne ling lingaara nga di ko bébbe bébbe kenn du ko woowee kilifa sa borom kër boo ko sàllawlu waxatuma la nga naan ko bébbe nag bébbe doo nekk ku bébbe ca sa néeg bee di def ak bébbe lu rëy bu ko wuyoo bébbe kuy bébbe fooy bébbe yow luy ndeyi bébbe ay neexal naan bee defe ne yaa rey gaynde ga déedéet kilifa danga koy dara jaal sa boroom kër danga koy dara jaal di ko jox gëddaam ba mu mat naan ko alaaji ak aas loolu la ñuy loolu la ñuy wax ci xale yi tey ci jonge gi ñu di ko def mais sàllaw la gu métti gi ci xale yii mën daal xale yi nañu teewee sëy léegi daf maa yéem trop trop trop trop sàllaw lu nañ seen santu borom kër yi tëna leen man daal man daal man daal man daal naa waaye nag it lépp ca yaay la rek ndax loo jàngul doo ko tari waaw te nag yat te bant bant bu tooy lañuy ñuy jubbanti waaye boo wooyee ba ni léegi boo ko bëggee jubbante mu dama te loo jàngul sa kër yaay boo sëyee doo ko mën